Vous écoutez Baol Media FM. yéen mbokki auditeurs yi lii mi ngi xewé fi ci marché Ocass nekkee fi ci diwaan bu Touba ndax kat dafa am ay nit yoo xamanteni ni dañoo nekk ci seen bir kër ci seen kaw balcon ay doomi aadama kat fekk leen fa di leen duma duma yu metti ki nga xamanteni ni moo di sunu reporter di Marème mom doxantuna ngir xol la fa xew. salaamaaleykum wa rahmatulah yéen auditeur ak auditrices yu Media FM ñu ngi fi ci marché Ocass. fi nga xam ne bërki démb ci aljuma ji ñu ngi wax ne dafa am ñu fi jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ba tax na am na ay jafe-jafe yu ci am ñu ngi ci biir kër gi nag tung ni du teew ñu koy natable donc ñu jox ki nga xam ne mbir mi moom moo ko fekkee ci la bokkoon sax buñ mënee wax xëy na sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar tur bi nga fàttali waa Bawol Media FM maa ngi tudd Mbaye Niass waaw affaire bi de nu mu demee c'est-à-dire côté 19 heures moins 10 yooyu quoi cest à pour di xool borom magasin yi tëj ak yi tëjul quoi bon juste c'est un cas benn borom magasin boo xamante ni moom xëy na tëjul woon magasin am bu ñu ba foofu bon juste ci la lañ seen nga dañu xaw a jaaxal sunu kër lañ seen booyee ci kaw kenn ki saaga daal ne ko ee eh, wàccal ñun ngay filmer bon juste ci lañ ñuy attaqué nag di défoncer la porte bon bi ñuy défoncer porte bi nag man ci laa jóg taxaw ak beneen booy bi sama rakk bi foofu ci la taxaw moom ñu eh, eh, ne léegi du fi dugg bon man bi moo ñëwee participer may ne amul problème mun ngeen fi dugg mais avec carte d'identification parce que un civil a dem ci këru ngeen dugg ma accompagner leen ngeen woon ma kan moo duñ fi dugg ñu ne ñoom duñ def loolu dañuy défoncer la porte pour dugg ñun nag ñu taxaw ñu leen di ngeen dugg parce que ñun xamuñu leen bon ñu téye booy bi man tamit ma téye booy bi ak ngeen ñun ñëpp ñu téye booy bi jàppal bàyyi jàppal bàyyi léegi après ci laa nga xam ne léegi kooku noonu demee mais da ngeen may wax nag léegi ko yóbbu parce que xaw ma police yi yéen xaw lan ngeen da ngeen wax ban police la ban commissariat bu ko defee ñu mën toog suñu dox après ñoom ñu ni non non non ko en tout boobu leen par force ba finalement ñu ñoo mujj bàyyi sax pour ñu libéré parce que pour bañoon bu yaar am. ok amoon yi c' est c' était à la à la à la à la yi foofu la woon bu ñu leen yóbbu woon nag juste ci la 19 heures jot ma calculer avec les règlements de couvre fa ma xam ne su ma demee commissariat balaa maa ñëw day fekk 20 heures jot. donc te bu ñu la jàppee si yoon bi après vingt heures tu as tort. léegi nag ci laa ne booy bi. Mm-hmm. Mm, mm, sama rakk bi Maxtaar man ko c'est pas l'appel comme que ñu ngi foofu après nañ bàyyi ba demee après bu dee ñu dem xool ñu dem booy nañ foofu bi ñu demee def suñu leen intervention yi pour ñu libérer booy bi ñu libérer booy immédiatement moom ci lañ gis la booy bi benn nopp bi neewi moom mu neewee nag après ci la ma taxaw ni mu mënu ma dox moom booy bi njuga wal ma ko ni mënu ma dox. bu ma waxee loolu man ko lan la mu ne ma avant ñu dugal ci gri bi dañ ñu dugal ci benn petite chambre bu ndaw fa la ñu monote duñ fa dóor dóor yu metti sook ñu évacué yóbbu ñu fii ci gri bi man ko ah, waaw mu man ko wax ah, d'accord amul problème donc loolu la te fii am na loi bon nañ dem dispensaire d'abord hôpital bu ñu demee après on va faire

en fait. non li ñaaxaat euh, waaw non cest man man waaw liggéey bi moom. xaw na métti. ndax nit ñi benn liggéeyuñu xiif nañu. boole ci ay dóor. te loolu daa métti am na loo xamante ne dafa métti trop man sama activité dañ ma ko dagg dama koo dagg parce que activité commerciale laa laay def dama koo dindi parce que dañ ma joxe arrêté dañ ma dañ koy dindi ma dindi ko booy bi ñu dóor dakaar la nekk bi arrêté bi génnee dafa ñëw kër baayam toog fi toog. ñëw toog fii beneen booy bi aussi Thiès la nekk bi arrêté bi génnee affaire de couvre dafa ñëw kër baayam toog waaye léegi imagine toi léegi dangay ñëw sa kër baay léegi ñu ñu fi nekk ñooy xor ñañal ñi fi nekk ñooy xor ñañal di dóor ak saaga surtout nag Touba Touba moom dafa am lu fi nekk loo xamante ni c'est un peu déplorable quoi parce que oto bi ñëw fi parfois day taxandeeg nit ñeeg di def ay jeu ñoom dañu bëgg di taxandeeg ñu naan police ngee ñuy daw yooyu yooyu dafa xew yi bu fekkee nit ñi dañ leen ñu dóor ñu xam bu dee sant ñu leen ñu dóor aussi ñu xam mais avant-hier man maa seetaan commissaire Sarr man maa ko seetaan à la télévision mu ne dóor lawul kenn léegi nag ñii dóor suñu booy bi bu fekkee ne ñun foofu lañ bokk ñu xam bu fekkee bokkuñu foofu ñu xam ak lu ñu yoon may aussi on va on doit le faire voilà avant ñu continuer interview bi aussi mën nañ def ci suñu remarque que ni maanaam benn loxo bi dafa mel ni dafa xaw a rëq wala dafa damm dinañ ci am ay leeral constaté nañ aussi euh, si suñuy remarque que ni euh, nopp bi aussi dafa xaw a neewi euh, et puis ni muy waxee baat bi wàcc na torop ce qui veut dire que ni am na lu koy metti torop yaram bi mu ngi metti mais nañ ko bàyyi moom mi nga xam ne moo dund yëf yi mu waxal boppam ngeen déglu ko. waaw mbir mi moom neen na dong la demee si man dafa am sama benn rakk boo xamante ni dañ doon waxtaan nekk si kaw mu yor téléphone am léegi si kaw noonu lañ euh, nekkee si kaw balcon bi si ni nekkee si kaw balcon bi nag léegi ñuy waxtaan woon yàgg téléphone am sonné muy wuyu si biir wuyu boobu nag léegi après si la si la oto bi taxawee mi ngi jëmoon si benn magasin foofu léegi ni taxawee yor téléphone am noonu di wuyu téléphone si la benn si équipe boobu parce que man mënuma euh, lii ne ay ay homme de tenue lañ wala ndaxte euh, du benn du carte deuxièmement kenn solu si tenue léegi oto bi ñu yore tamit du giri bi nga xamante ne giri police la parce que oto yi oto bi ñu yore ñu ngi ko defal ay ay ay barre ferron nii rek ay barre ferron lañ ko lañ ko lañ ko monter deuxièmement biñ ñëwee nag ba àgg bi ñëwee nag comme mi ngi yor téléphone am di wuyu takk casque tiim ti tiim tiim gaa yi nag léegi na ci la benn waaye jékkee-jékki rek si ñoom wàcc saaga nday ne ko nangam tàngal ndeyam wàccee sa téléphone mais nga da ngay filmé léegi si lañu la posé si lañ liyee nag nee ñoom dañu dugg dañuy dugg léegi am na beneen étage bu nekk nii dend ak ñun comme nii comme ça léegi kenn am na ko doon waaj a dugg foofu keneen keneen ki ne ko du foofu euh, fii la léegi bi ñëwee ba fii sama benn rakk bu góor kar leen ne leen du ngeen dugg ci kër yéen ban ban droit ngeen am dugg si kër gi nii naa nangam nangam laaj leen seen carte bi mu leen laajee seen carte léegi ñu bañ la léegi ñoom euh, nanguwu ñoo wane benn yoon carte léegi ñu ne nag du ñu ne leen nag du ngeen dugg ci kër gi ñu bëgg jaayante ñun doole di ko di di ñu di bu ma ak di ñun tamit ñuy xëcaat ñuy xëcaat seen rakk moo ñëw ne leen eh wax dëgg amu leen benn droit wala benn autorisation wala kenn yónni leen wala si leen lu ngeen war a mën a duggee si biir kër gi c'est parce que benn yéen sol leen tëni siful ngeen kenn yóoru leen carte c'est parce que mun leen taxaw leen fenn wane seen carte biñ leen laajee nag bu ngeen wane seen carte mën ngeen a am li ngeen mën ngeen am li ngeen bëgg mais du noonu ak ak ak jaay doole c'est parce que réew mi lépp yoon la léegi nag si noonu fi lañ yàgg ñu nañu ñu nag léegi ñun la ñu yóbbu ñee léegi ñii xëccoog ñun ñu leen garaawul nañ leen bàyyi ñu dem biñu àggee nag léegi si lañ kiiwee si lañ jógee te avant loolu am na koo xamante ne nii paaka la doon génne man sax loola loola ma gën a boole ci ci dem bi paaka bi moom mu gën a boole si dem bi parce que ki génnee paaka bi si mm-hmm. ñoom la ànd oto bi si kanam la jógee si mm-hmm. kanam kanam oto bi la jëlee paaka bi mm-hmm. man maa ko dogaale loxoom su ma sëggee bay jëlelu paaka bi si lañ jàppee sama loxo weñ. d'accord ñu ñoom si lañ léegi si lañ jàppee sama si la si la kooku jàppee sama loxo weñ keneen moo moo doxee ginnaaw jàpp sama loxo weñ léegi ñuy léegi ñu ne léegi nañ leen bàyyi ñu dem biñ biñ demee ba àgg nag léegi si lañ taxawee ne ñu fekkente ne yéen yéen a moom kër gi ba bay aaye ku fa dugg ak ku fa dugg loolu dina leer si lañ ñëwee nag ñëw ba àgg ñu yóbbu ñu euh, police yi janatu biñ ñu yóbboo ba police yi janatu nag au lieu que ñu taxawul si euh, table control bi ñu wax li nga xamante ni moo fa am. waaw kon donc defu leen déclaration defuñu dara dañ ñoo jël du am fu ñu dugal tout droit. su xamante ni war naa mat ak table contrôle bi war naa mat ay vingt six vingt six mètres. vingt six mètres vingt huit mètres. ñu dugal ñu foofu ci benn néeg foofu léegi jàpp ñu. jàpp ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu ba seen xol sedd ñu détourné waat ñoo ñu ci contrôle bi ne ñi Euh, fañ leen jëlee dañ doon xeex ak ñun di jaayanteeg ñun doole si noonu si noonu nag si lañ retourné waat demaat ba mu yàgg am keneen ku ñëwaat ne ñii nii ñii ñoo leen fi indi woon suñu kii lañ léegi dañ leen a soxlawaat si noonu lañ ñu jëlaatee yóbbuwaat ñu foofu di dañu dooraat entre six personnes ak keneen ku fa fekkaat muy set ñu leen dóor ñi seet waaw ani commissaire nekku fa xanaa boobu commissaire nekku fa commissaire nekku fa mhm. mais ñi nga xamante ne nii ñoo monté woon ñoo monte garde ah. ci policiers yi ña nga fa euh, ban heure la euh, bi ñu àgg foofu bi ñu dooree bi ñu def li ñu def ba pare bi ñuy dugal ci giri bi bi ñu dugalee ci giri bi bañ toogee si la ñu door a noddu timis mais amul seen benn proche bu toppoon seen ginnaaw. amul suñ amul benn proche boo xam ne topp na suñ ginnaaw c'est parce que dañ doon sóoraale heure bi. demee heure bi heure heure bi jot. parce que léegi ñoom bu heure bi jotee luñ leen mën a def. boobu ñoom ñoo wàcc seen seen droit. moo tax mënuñu saa toog. d'accord d'après li yow ban euh, ban lan ngay euh, maanaam sa góor yi nga xam ne aussi parfois dañuy dañuy am même situation yi ak takk der yi lan war a def réellement. maanaam pour man bu buñ jaaree buñ jaaree fi ma bëgg a jaar man maanaam dana dana dana leen dimbale si lu bari te parce que maanaam li xamante ni mooy xew lu mel ne ay dakaar rek ay yeneen dëkk yi ñàkk a négligé ñàkk a négligé gi moo tax ñi jëlee fa ñi jëlee fa néewal doole gi ñu leen di néewal doole mais om de tenue dañ ko teg ci dëkk pour mu aar pour mu aar réew mi mais teguñ ko ci dëkk pour mu faagaagal doomi réew mi kon ñooñu noonu dañoo war a def comme nu ma def bu leen jaralee feneen foo xam bu ñu leen fekkente ne dañ leen a kii nii ñi jël ñi jaar ñi jaar si yoon bi c'est parce que bu ñu leen dóoree fii bu ñu demee buñ demaat foofu defaat fa seen i plainte ñu demaat si yoon c'est demaatee seen i yooyu dañ koy mën nañ ko mën nañ ko naxasaale niiral ko parce que même équipe lay doon dañuy dañuy dañuy jàppalante seen biir. kon ñu lay jaajëfal sëñ loolu moo nekkoon situation bi ñu fekk fi nga xam ne moom mooy marché Ocass euh, ñu ne euh, xale yi dañ doon jàmmarloo ak euh, takk der yi ba tax na am na kenn koo xam ne blessé na ci metti na lool nag metti na d'après nos constats. lii kat mi ngi xew woon ci yu couvre-feu bi nga xamante ni moom moo am fii ci réewum Sénégal mu nekk jëf joo xamante ni jëf ju ñaaw la jëf la joo xamante ni kenn rafetlu ko fii ci biir réew mi rawatina fii ci Touba ak Bawal Média rek xibaar yu wér te wóor. vous écoutez.